conseil constitutionnel contrôlé wul suñu parrainage. moo tax. alors li tax euh, contrôlé wul suñu parrainage euh, loo xam ne la da nga may permettre. ma expliquer ko nit ñi ñu xam. parce que dañuy dégg souvent ñu naan diw parenage am mat na parrainage am matul recalé yooyu ngay dégg mais dafa am benn processus boo xam ne mu ngi ci biir te kenn leeralu ko conseil constitutionnel boo fa eggee. boo duggee ci porte bi gendarme bi day njëkk a ñaata carton moo nekk ci sa ci sa ci say bagage ñaata carton nga andi ma nga quatorze régions la mhm. bu ñu ko defee ba pare ñu woo ay nit ñu ñëw jël carton yi dugal ko ci biir benn hall foo xam ne fa la candidat yi di xaar wala seen représentant carton parrainage carton parrainage je croyais que parrainage yi si clé USB lay nekk maa ngi ñëw ok alors bu loolu pare ngeen toog xaar keneen ñëw jël si leen yóbbu leen ci bureau greffier en chef bureau greffier en chef bi ci la ñuy recevoir dossier de candidature yi loolu nag dafa am benn texte boo xam ne conseil constitutionnel daf ko jël décision numéro un deux mille vingt mooy organiser ni ñuy réceptionner dosier de candidature yi ci ñun liñu ñu ba ñu duggee suñu représentant mandataire ak coordonnateur du parrainage bi ñu duggee ci bureau greffier en chef greffier en chef bi dafa fekk mu doon wàjji génn mu génn mais personnel de greffe bi ak de réception ñu ngi foon hmm. premier acte bi ñu posé mooy dañu jël en fait dossier bi daal di xool jël clé bi dugal ko ci benn ordinateur technicien bi dafa ne suñu mandataire bëggul juum donc dafay jël fichier bi mu recopier ko ci ordinateur am source de première modification bi mu ko defee. pourquoi nga ni source de première modification. parce que maa ngi maa ngi ñëw mu renommer dossier bi tuddeetu ko dossier parenage ëllëgu Sénégal fichier parrainage ëllëgu Sénégal mu ngi ko tuddee fichier Charles. Mhm. ñu jël fichier bi ubbi ko fichier bi yëpp ubbeeku. ñu xool région par région région de Dakar mu ne ko mandataire Charles VI mhm. parrain yi ndax yaa ngi koy confirmer nombre bi mu ne ko confirmer na ko mu jël Fatick jël Kaolack jël Ziguinchor ba yépp jeex mu xool globalement mu ne ko am ngeen cinquante huit mille et quelques parrains ndax confirmer kooku ne ko confirmer na ko étape boobu amul benn jafe-jafe mhm. jafe-jafe bii ñëw après la mandataire bi dafa seetlu technicien bi ubbi fichier bi daal di créer ñaari feuillet ci biir fichier bi mu ne ko lu tax nga créer ñaari feuillet ci biir fichier bi yaa ngi modifier fichier bi technicien conseil constitutionnel conseil constitutionnel oh, moo créer ñaari feuille ci biir ci biir fichier Excel xam nga fichier Excel la ay feuille la feuille bu nekk benn région la mm-hmm. mu ne ko ñun soxlawuñu lii parce que suñuy parents yëpp yi nekk Dakar ñu ngi ci benn feuillet mu ne ko ah dans ce cas suñu bëri nii la ñuy def dans ce xaaral ma supprimer ko ñu ne ko supprimer ko mu jéem ko supprimer mënu ko supprimer finalement beneen technicien bu xaw a âgé. Mhm. moo ñëw daal di koy. expliquer ci biir conseil ci biir conseil constitutionnel la nekk. expliquer ko nan la ñuy supprimer. li nga xam ne daf ko modifier kooku supprimer ko. est-ce que da ngay euh, junj foofu ne technicien conseil constitutionnel il est incompétent su ma la déggee bu baax. technicien parce que nga mën li may wax mooy technicien conseil constitutionnel yi dañuy ubbi fichier Excel yi. et loolu c'est prévu ci décision bi mais nekk noo xam ne leeraluñ ko candidat yi nga bàyyi ma ma ma ma terminer di ngeen gën a mën a comprendre bi mu supprimer fichier bi bi mu supprimer feuille feuille yi ñu créer mu jëlaat euh, li nga xam ne moo nekk ci ci ci ci ci clé bi. Mhm. xool ko xool machine bi jël fichier bi nekkoon ci machine bi copier wat ko ci clé bi copier waat ko ci clé bi donc clé bi am na modification. Mhm. bi ñu paree ci loolu mu jël clé bi jox ko mandataire bi. mais mais mandataire bi balaa ngay avancer lan moo la leer ni clé bi am na modification. mais clé boo xam ne ñëpp ñu def infor sax loolu sax def informatique clé boo xam ne dañu jël fichier bi fichier de la clé. Ouais. copier ko ci ordinateur. vérifier feuille par feuille. Mhm. modifier ko créer ay feuilles ci biir ci biir ci biir ci biir fichier bi mais ça c'est une modification. est loolu fichier bi ni mu ñëwee. est-ce que bi ñu ko modifié parrainage yi dafa am yu tëb wala. dafa man mënuma ci wax dara li ma la mën a wax mooy. Mm. ba ñu ko ba may ma àggali dinaa la expliquer li ci topp. li ci topp mooy bi nga xamee ne technicien bi nga xam ne créé woon na feuille yi mënu ko supprimer beneen technicien moo ñëw supprimer feuille yooyu. Mm-hmm. te bi mu paree dafa jël clé dafa jël fichier bi copier waat ko ci suñu clé jël clé bi jox ko mandataire bi. Mm-hmm. mandataire bi greffier bi laaj ko ne ko jox ma jox ma clé bi mu jox ko clé bi mu jël clé bi dugal ko ci benn enveloppe jël enveloppe bi scotché ko ne ko signel mu signé bi mu paree mu daal di tapé tapé proce verbal de dépôt bi maanaam li fa xew maanaam gis nañu ne candidat wu Charles Ciss ñëw na am ngeen tant de parrain ci tant de région ubbi nañu fichier bi. Mhm. lépp jaar na yoon seen parrain global lii la ndax mën ngeen signer ak yeneen pièces yi ñu déposé. Mhm. bi mu defee loolu aussi mu tiire procès verbal bi jox mandataire bi. ak ki mu àndaloon ne ko liiral coordonnateur parrainage ne ko liiral mu liir pour xam est-ce que mhm. kooku liir ne ko gis nañ ci benn erreur. mu tiire beneen exemplaire donc muy ñaari exemplaire mu jël ko jox ko le chef du service des greffes. chef du service des greffes du conseil constitutionnel kooku liir ne lépp jar na yoon. mu signer procès verbal bi. loolu mooy mooy lan bi ñu signer procès verbal bi amul benn incident buñ ci relever parce que article trois bi nga xamee ne mooy organiser dépôt bi dafa ne. Mhm. lépp lu jëm ci wàllu parrainage procès verbal. moo koy jeexal maanaam procès verbal mooy sanctionner dépôt bi. te tout vice affectant le fichier électronique fait l'objet d'une mention sur le récépissé de dépôt ouais. maanaam lépp lu am jafe-jafe sikki sàkk wala lu jaaduwul mhm. ci biir fichier électronique bi nga xam ne moom la ñu war a exploiter ci procès verbal bi lañ koy mentionné léegi defal nañ buñ ko mentionné wul ci procès verbal bi ça veut que amul benn vice te bu amoon vis deux techniciens yi dinañ ne lii am na vis